commune de Madina terminée en beauté finale championnat national populaire di nawetaan édition 2024 diggante Gadiagi la woon ak Bobi Kandji finalement équipe boobu di Bobi Kandji moo mujj remporté finale bi si score bu ci kanamu public bu mag bàyyee ko fu nekk si mboolem village ak amoo ak it seen yeneen ñooñ yi jóge si yeneen commune si département de Mbacké ñëwoon ngir assister fête de la jeunesse si njiitalu Serigne Sy di jiite conseil communal mbooloo supporter dignement sa équipe dans la paix autorité yi teewoon nanu maireu Medina ak ay ñoñam wutaw wuñu ko woon ba si yeneen autorité yi fare si administration locale bi ak it conseil communal jeunesse yëpp ñëwoon nanu final bi tamit amoon na ay parrain bokkoon na si Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly njiitu nekkal fi askan wi yebal une forte délégation Cheikh Tidiane Dia moo wax si kàddoom dellu si si yéen ak homme politique bi si diwaan bi euh, honorable député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly kontaan na lool ci li ngeen ko def mu nekk parrain te wax dëgg yàlla moom fi doonoon a teew waaye xat-xati jamono ji moo ko jàpp moo tax ñëwul waaye moom moo waroon a ñëw teewal fi boppam parce que luy activité de jeunesse rek moom déjà def ci adhéré asamaak ñun ñii mu ñu yebal man mi xam naa bu baax a baax a baax activité ODCAV parce que newoon naa secrétaire général ODCAV nekk trésorier ODCAV nekk entraîneur di pratiquant de football kon xam naa li baax ñoo ngi félicité ñi nga xam ne bii mooy vainqueur yi di jaajëfal vaincre yi. waaye tamit honorable député Serigne Cheikh Thioro Mbacké moom it bokkoon na si ñu ngi ko duppee woon yebal fa tamit délégation woom nekkat yéeneem tamit sori na loolu ki ko fa teewaloon profité wax si tamit doléance bi ndaw yi bëgg ñu indi si saafara moo di stade municipal bi ñu mën ko koo clôturer. kon donc ñu ngi leen di yóbbante nuyoo honorable député Cheikh Thioro di wax ne lépp loo xam si ni seen bëgg-bëgg la moom bëgg-bëggam la lépp loo xam ni seen yitte la la jeunesse de commune de Madina jàpp leen ne honorable député Cheikh Thioro ngi seen ginnaaw. di wax rek lu ndaw di ko dagaan en tant que jeunesse muy stade municipal bi nga xam si ni ndaw yu bari ñu ngi koy jooy kon monsieur le maire lonk ñu ngi la koy taataan di la ko ñaan. moom maire bii di Khadim rafet lu ndaw yi fair play bi ak it ni nu mobiliser woo ñëw pour clôturer seen i nawetaan nee na question boobu ñu soulever dina si indi saafara ku sax dàkk. di wax ne it affaire stade bi ngeen di wax. stade bi préparé woon naa ba nan dama koy délibéré délibération bi defoon naa ko presque ba waxtaan ak ki nga xam moom tool si ba noppi mais nag entre temps moo am lu fi amoon ci xeeti histoire ba xeex am ba sëriñ bi ne bu leen fi footballati moo tax ma téye ko mais nag comme nii ma ko gisee ak détermination bii ngeen amee bu soobee yàlla danaa taxaw ci ñu délibéré ko ñu collecté ko bu ko defee nag affaire bi gën a avancé jëm kanam maa ngi leen di sant di leen gërëm bàyyiwuma kenn tey moom vraiment. njiitu conseil communal de la jeunesse bu Madina Serigne si bokk si ñu organisé woon final bi rafetlu jeunesse bi responsabilité bi nu ñëwee ak it fair play bi ne nag développement dëkk bi da ko itteel loolu te jeunesse bi ñoo ko war a mën a booster ba mu jëm ca kanam remercier ñëpp ñoo xamante ni jàppoon nañu si bile final. ndax kàddu yi mbégte la ak contentement. parce que kenn ñëpp xam nañ ne bi ñu démarré suñu activité nawetaan édition 2024 bii commencé nañ ko ci bisimilah rahmaani rahim àggalee ko ci alhamdulilahi rabil alamina ñuy sant mbooleem ASC yi nga xam ne ñoo composé commune bu Madina ñi nga xam ne ñoo si jot a participé ak ñi participé wul su ma limee damay juum mais jàppale nag commune bu Madina ñëpp ñi woon ci ginnaaw activité bi actuellement nii ñëpp bu taaroo bu bis bu mu egsi fii tey ñoom la kon ci gàttal rek pour bañ a lim di guddal ñi ngi sant ñëpp suñu limee rek dañuy jum bàyyiwuñu kenn commencé damay jël ñaar rek jox jox nuyoo bi ñu jàllee ko si ñëpp ku si mel ne le secrétaire Khadim Niang ak ñu jàllee nuyoo bi ci délégué yëpp su ma limee damay juum di félicité bu baax a baax nag ñi nga xam ne mooy ASC Bobi Kanji bi nga xam ne moo gañ a ndam li tey bi nga xam ne moom la yaa dogal mu perdre di ko wax ne li ñoo fait la force mbooloo mooy doole te lii rek lañ soxla woon football ci jàmm fair play fo kafre yaakaar naa commune Madina moom miin nañ ko parce que suñuy nawetaan en général heure bu ñu ko dem commencé dina jeex ci beauté incha allah rabi. di fàttali amoon na ay décoration ay distinction table bi également feesoon na loolu ak ay lot jeu de maillot ballon ak yëpp ya muy àndal ak ay médailles boole kook ay enveloppe financière yu bàyyeekoo tamit si mboolem ñun duppee woon final bii yu terminé final bi en beauté ndaw yi fas yéene waajal saison wu dëwën. Mashallah. Mashallah. Bobby Kandi vainqueur. Nalotan de la commune.